Les 17 26 novembre dans le showroom ba nekk Yoff cité Biagi. parcelle croisement 22 à ci cac télécharger application cac sénégal kadi saf Gold, une nouvelle vision de la bijouterie. Chez Umbilico, votre confort, notre satisfaction, votre bien-être, notre credo. Umbilico, Liberté 1, Fastadium Stadium Marius Ndiaye. 77 519 1804 ou le 77 762 37 47. Umbilico, the best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 le paradis. Étoile africaine. Pour vos tenues de cérémonie, vos tenues de soirée et autres, une seule adresse. Showroom Héritage Couture à la zone de captage rond.emg ou sur internet www.héritagecouture.net. Matidi.com Pinot Fashion Ara Ideal Style Sou. by Nadie. Bomba Design, Aya Couture, M60, Fatty Shop Prestige, Harlem City, Bashik Universal, MKB Store, le Pop Shop. C'est toujours les mêmes personnes qui font la grève ou quoi Vous faites à on passe à la vitesse supérieure. Il est temps Yonga wone kanti famille depuis que vous démé sey attendre ba légui da nga changé yow yay bado la gay amul pour agro yow complice nga lu Retrouvez votre série La Graine du Pouvoir tous les lundis, mercredis et vendredis à 19h sur la chaîne YouTube Marodi TV.

mais sa dire que je lay insister depuis sànq ba tey di woote nii rek mais c'est normal que mu woola nag parce que tu sais très bien qu'il joue son rôle de frère protecteur. tu trouves. mais bien sûr. mais est-ce que xam nga ne ça dire moo gën a fee sam papa kii wéru dafa dof de. leen laa la mën a wax man dinaa rassurer paa bi ak sa frère aussi tamit incha tu sais en ce qui concerne. Mm-hmm. ma tante et ma mère et tout ça là c'est pas un problème. Mm -hmm. mais du côté de mon père.

bonsoir Fanta. ça va Leila. ça va. bien..? c'est si jàmm. bu et pourtant je suis là. Seydou. là ça va. ça fait un bail. bébé. ouais. Fanta Seydou. enchanté. ça va bien..? Hein? comment vous ça va bien. Et daa mel ni le na ci de ah Endem. passez une bonne soirée. il est là. ni mhm. J'ai vraiment pas envie d'en parler. Mais bon, comme tu insistes, et s'il te plaît, j'ai pas besoin de jugement ni de commentaires. D'accord, c'est promis.

yow man ngay jema a nax di ma jéem wala da nga yow ñun danoo dof. sa dir dire ndekete yow géer gu set wetch nga dinu fem géer gu set wetch la wala ah, ba nga nekkee géer gu set wetch nga warona baña fem wax ñu deug lan ngay nëbb sa bop gis nga fi li nga bëgg ni du fi am nit ku bon. grand je ne te permets pas ngay saaga sama xet eh man saaga ma sa xet ki mo jëk njëkk sa xet moom parce que mom mo xamni ne nga pare waxuma yow nga ci jema tek sa tank di fenn nangoo ñoo deug bëgg lu bon. cum eh, mais lan moo xew fii Layla. Layla du xew fii. grand non dara xewul. la. maay dem Layla Babacar déglu ma nga expliqué. ay demal. du lii nga bëggoon am nga ko mais yow Sadikh lan mooy sa problème dama bëgg nga wax ma yow lan mooy sa problème Sadikh man sa rakk laa lan moo tax nga soxor lan moo tax nga iñaan gis nga Babacar mii. moom laay bëgg ba keroog may dee bu fekkee na yow waxu mbokk danga ko daf la soxal carrément mais lan moo la tere nga jàppale ma sama diggante ak Babacar yow Sadikh ah balaa may dee nga may bëgg rey ak ñeeñoo te mëtoo sax kilifa am sa ñaari jeeg mënoo leen gérer. eh dama bëgg nga noppi man duma sa morom buy wax nga may tontu gis nga kër gi li fi jot a xew jàll dootul amati yow deretu dëgg mooy rax sa deret leneen du fi rax. yow doo sëy dëgg. def ko sa xel. dans tes rêves xam nga lan laa bëgg yow nga def sa xel que cette décision là elle t'appartient pas sama papa bu ñëwee moo koy. Eh, eh, bu ma tontu romb. mën ma laa lor mën leen ko. bee boo nga xam ni 23h dootoo génn ci kër gi. bonne nuit. À bientôt. salam

je vais commencer par m'excuser d'avoir surréagi. se Samachar. T'inquiète pas. Parle-moi avec. En fait, le problème, ce n'est même pas toi. mal la situation moi, bizarre rek ma fais là avec cette fille là mais wax et tout ça devant moi yo le centre de ton attention je dafa que intruse la où en fait j'avais l'impression beaucoup moi. ok d'accord je comprends mais Fabine, nga dem ba dem de joueur et quelqu'un qui aime plaire mes mots ont dépassé ma pensée les mots boivent notre pensée avant que nous ayons eu le temps de la reconnaître gis nga nit li ngay wax ci bi nga mere boo ko seetee ba biir dëgg la. Khalil waxtaan wax dëgg si la comme ni ma koy waxee yow tu sais très bien de quoi je parle Khalil tu aimes plaire tu aimes avoir de l'attention et surtout l'attention féminine da nga bëgg di flirter avec le danger te loolu moo nekkoon souvent sujet de discorde entre yow ak man pour man bi ñu marié sax changé nga mais naka te da nga ko suuloon bi ma la avec cette fille là xarit bu demb rek la don giss et yow leer na la leer ni que elle est en chien sur toi wala nga bëgg dof dof lu rek bañ ko gis. d'accord xamé mako ko tu vois waxtaan ak communication yu baxé ci couple je te promets que dootuma ko defati on est bon. pas encore suba foog ñu rattrapé weekend bi nga xamante ni moom la maam naar yàgg. doo bàyyi tooñ da nga woowee tur boobu. da nga koy défendre. jamais foo ko bëggee. notre coin favori. jeex na ni nga ko bëggee noonu laa koy defee man duma nangu kenn ku ma yàq sama diggante ak yow. kon baax na. allez viens dans glissé la la. Mary. oui. yow yaa arrêté. ma la doon xoolee démb noonu laa lay xoolee tey dara changé wu si. oh bari changé na da ngaa màgg jantal daf jar. <laughs> rahmaani rahiim yoonu jàmm dem ak jàmm ñëw ak ma bët bu aay andi jéggil ndox mi ok Thiam na lépp mën na rangé naa ko depuis dem. waaw kañ Thiam li yàlla la yomb. bisimilah rahmaani rahiim bisimilah. yàlla nañu yàlla musal ci bët bu aay musal ñu ci cat ci làmmiñ bu ñaw ak làmmiñ bu ñuul yàlla na leen yàlla musal ci xar fa fuufa lu bon. état motul wala benn xar fuufa dina laal xar fa fuufa. ku xam xarfu fa kay wax bag bi nak bu soba yalla yalla rek bag bi ta yee yàlla rek fatina sama bi moy yeen Omar cham mi malik lai ilaha illallah ay xale bi xarfa fufa laal lal nako yow la ilaha illallah te da lay yob si lamb wa ay xadi eh nga pujje de sa làmmiñ ci sa ginnaw nga pujje fala yam ak yow nak man da laajte kese sala def. laajte wo de dañ la yoni buma tojal nak fa laa yem ak yow sa lamine bu ñaw ne lay set de nga <laughs> bu ñu tojal nak fa laa yem ak yow. fii daal ñu tojal xam nañ seen bo ñu tojalaate moom. ay way yaay tata aw bu ngeen di xulo bay yebal seen dom ñu dem ba ngeen wara bu ñu traumatiser way mané yow sa tank bi te nga jall yalla musal la ci cat ak lamine ak bala lay set aram na len puso aram na len ay arrêté nak ma jallal e eh, top ci yow mi waaw. Insa eh, yoonu jàmm bul jox kenn loxo caam. yéen a ngi dem nag bu leen geesu kenn. tey de sama mbëri de soppeeku nañ mais Boussa tey ban mbër laa lay jox. waaw jàmm. yow Omar bul nga naan ma. ay waay man de maa yuuxu man Omar bii ay waay xale bii liggéey nañ ko di man maa bañ jéggu noppi jéggu noppi daw ko.

mais kaay ma wax la chemise cravate jàpp la de. ah bon. yii instant yi maa ngi fiir ni sax bu ma sax nga génn gi. non mais metti méttiwul bul fiir fan nga toll yow sa démarche crèche bi oui ma xana yàkkamte bu may liggéey ñuy ànd dem xam nga des fois nga dawal mais qu'est-ce qui bloque. mais xam nga ni ma gëna bëgg xey ñëpp mais man mi sax mënuma la wax fii la bloqué wo lenteur administratif bi nekk Sénégal amul fenn te loolu rek mën na décourager beaucoup d'entrepreneurs. c'est incroyable. ouais c'est vrai hein j'avoue mais bon. Yo, am-toi de patience Oui ma bu la dara metti pour la dara sonal tegal lépp si loxo déjà li gënoon metti am nga ko yaa ngi diplôme de l'enfance li si des teg ko ci loxo d'accord. incha Wabé. Bataille ba tey pourquoi. tu es sérieux da nga fàtte ni que dañu waroon dem suñu endroit préféré corniche toog posé ou faire lu waxtaan. mais damay foo rek.

par rapport à l'administration bi léegi bras long sax doyatul il faut que tu mettes la tête le cou les jambes tout le corps T'es douté, en fait dossier yéex. yooyu yëpp ay jafé, jafé, la del faral de saraxe. d'accord maman. Dina xool ak Serigne Kunta su dee am le lu mu est-ce que jar na man nam am ma booleel rek pour mu accélérer affaire yi. jar na kay. il faut di nga xam bariwul. waaw ça marche Mon problème merci maman bisous ci <laughs> Franchement, Madame Sow a fait un excellent travail. En un temps record, elle a réussi à identifier la brèche et là, on peut vérifier le process. Exactement. que tu as dit? si si dama un rendez-vous bu urgent que je ne mënuma pas tarder. mais xanaa madame la. <laughs> madame nag dina may une heure de temps encore parce que j'ai déjà appelé monsieur Ndour ak madame Sow d'ailleurs ñu ngi si yoon bi xamna naa ñu wara a té yow en tant que chef de projet auditeur la amul dara lu lay reprocher et je crois que war nga mën a fekk suñu réunion bi. monsieur Ndiaye je suis vraiment désolé mais lool mënul xaar ba benen yoon parce que <laughs> tàggoo lool bonjour monsieur Ndiaye. monsieur bonjour bonjour. monsieur Ndiaye madame Sow. bonjour monsieur Ndiaye. bonjour Ibrahima. Ah bon Madame So pour nous et mairie <laughs> non, madame, Mohamed En fait, sama rakku meilleur ami c'est ça. Ah oui. Ah, conflit d'intérêts? Absolument pas. D'ailleurs, j'ai une entière confiance à son endroit. Si M. Ndour me le permet, je vais vous donner ça, Inch'Allah. On s'y met? Leila? Leila? Julian is hier RBD. فخ سيلونة هاي نيرك تعسو فاكنك كان باكونس ناخدنا يعني بيلي yow tamit sa rek moo ma doon toppatoo en plus bëgguma woon sax ñibbisi nga ne bëgg woon ñibbisi lu tax nga bëgg lu yomb kan moo ko bañ yow tamit dama ko kidnappé une semaine Ben, fan que la si en plus c'était avec ta copine là qui ça. Qui ma fait' kër maman Oumou la dernière fois. ah tu parles de Mary. oui c'est elle. pourtant elle m'a rien dit. ok sinon toi ça va. oui je gère. Leila tu sais que tu peux me parler si tu as besoin de moi. merci Fa c'est gentil mais bon mais ça dire sonal na ma mën na wax lu ko neex wala mu def lu ko neex mais duma ma nek ak Bakar lolou mom mënu si dara. même papa Ndiouga Leila, yow tey jii normalement su fekke da nga bëgg sa relation ak Babacar am wala mu neex da nga wara naxanté tu peux pas chercher la confrontation avec ta famille àdduna bi lo gis xel mo koy li lijjanti donc jéemal nga xool nan ngay naxanté ak ñom rek tu sais Faa man bëgguma un problème ak kenn ci famille bi d'autant plus que Pandiouga mais dama nopp Babacar il est tellement gentil il est doux en plus dafa ma dafa ma bëgg ba ma xam ko xam naa ne moom su ma takkulee du ma sëy keneen parce que moom rek laa yéene sama bopp Faa dama nopp Babacar de yow de daa mel ni li ma màtt ci sa rakk ji la mat fi mu nekk nii <laughs> mais t'inquiète pas de toutes les manières man amna naa ci pressentiment bu baax donc tu n'as pas à t'en faire pour cela. ah quand on war nga ma parce que là actuellement ce que je ressens là vraiment amul dara aussi si baax j'ai un très mauvais pressentiment. t'inquiète pas tout va rentrer dans l'ordre li ngay def nii nii xool stress bi kese la du leneen wuy ma man damaa dem rek kër gi di màbb li ma mon mu xew fi yëpp nu mu instant bi taluma kaa taluma dara loolu sama bopp xam nga kuy jooy mënta nax kuy jooy bàyyi sa yi nga nekkee taloo ay kaa wala instant bii nii saxul moo nekkul ci waxu kaa. sama xel bee dem en tout cas daal benn peste bi ci kër bi rek toujours la même xam nga ko nabu bàyyiwul kenn comme te gisula nag. mu viré ci Awa Cheikh. mère Awa Awa mi nga xamante ne boolewul daraa ko wax. xam nga koy xuloo ak Awa Cheikh kooku am nga problème elle est malade kooku du nit. bëri nga histoire moom. Nabou de xam nga ko moom c'est une sorcière du changer en tout cas comme yow ñëw nga peut-être mu jël mu jëlaat mu jëlaat la. Mm-hmm. engagé wu la yow. mun <laughs> na xam na ne damaa réew ba dafa bant bu gudd la may laalee. jikkoom la de. yow la doon xaar nga ñibbisi. man taluma ko. instant bi nii maa ngi sur un petit nuage bu ma yàkkal loolu ah. na ma may tuuti. am nga fulla de bu la kenn rey. xam na ni moom stress moom man dama koy sax daw.

c'est dal at Punch. C'est Anna et c'est une série Babel Pour ne pas avoir une trop forte consommation d'énergie, évitez de surcharger vos réfrigérateurs et congélateurs. Sénélec ak Woyofal yaxanal énergie yaxanal se poche Chez Umbilico, votre confort, notre satisfaction, votre bien-être, notre credo. Umbilico, Liberté 1, face Stadium Marius Ndiaye. 77 519 1804 ou le 77 762 37 47. Umbilico, the best. et Couture, une belle tenue augmente notre confiance en nous. Global Textile Hassan Fall Parcelles Assini. unité 12 ci wetu Sénélec ba day jaay gros ak demi gros. mais vous deux là yéen ñaar ñii vous formez une très belle équipe hein? mais monsieur Ndiaye loolu taxul ma jox la son meilleur élément de. mais monsieur Ndour da ngaa bàyyi ma déniché ko rek madame Sow je te propose le double de ton salaire. Mmh. je suis où. madame Sow. ah boss nga baal ma de waaye man damaa toll ci wutum koppar. mais madame Sow loolay dëgg yow tu es belle tu es intelligente macha allah tu es ravissante tu es élégante yow mun nga am góor bu ne góor boo xam ne mun na la yor yoraale salaire. en fait man loolu laa mënul comprendre mentalité boobu jigéen lu tax jigéen warul mën a yor boppam mais mentalité boobu kañ lay changer. à qui la faute. mais c'est partagé ñu commencé ko tey suñu yaay yi kay sa yaay bu lay ñaanal da naan sama doom bu jigéen bi yàlla na ko yàlla may jëkkër milliardaire pourtant mu ñaanal lool ko doomam bu jigéen boobu mu am ay milliards loolu gënul gaaw je suis d'accord et je pense que c'est tout à fait normal góor yor jigéen jigéen ak lu mu mënti am góor waru ko gis te am na góor yoo xamante ni nii sax su jigéen yoree yenn yor yi dafay créer benn complexité si ñoom ñaar dafa fekk rek ku jigéen ki gëmul boppam pour man sëy daa am yoonam tekki am yoonam ñoom ñaar ñëpp benn warul mën a freiner boppam te xam nga lan moo gën a wóor ci moment bi ñu toll liggéey ba tekki bu jëkkër ñëwee baax na su ñëwul xeerul su ma déggee bu baax da nga bëgg wax ni sëy dafay freiner tekki ok supposons nga nekk célibataire di liggéey ba am nga jékki-jékki am jëkkër sa jëkkër boobu dee dafa nekk góor bu compliqué tere la liggéey nooy def ma ne ko fa ñukk <laughs> d'accord imaginel aussi ngay sëy am liggéey nga am partenaire boo xamante ni ne mën na la booster mi ngi tax sa liggéey di jëm kanam da ni di ànd. au cas contraire nga am partenaire boo xamante ni dafay freiné sa liggéey n'est-ce pas da nga ko fay bàyyee c'est simple moi je pense que sëy ak circonstances yu mu la mënti fekk warul mën a nekk frain ci yow war nga liggéey comme war nga bañ a liggéey.

madame Sow xalaatal bu baax ci sama proposition bi ma la jox c'est très important et je crois que aussi tamit doo ko rëccu quoi. mais monsieur Ndiaye loolu lu ñuy xoolaat. non yow sama waay nga on est ensemble je crois que bu ñu waxtaanee rek di doon jubóo xanaa xamoo ne kuy xaru bu gisoon avant muy xaru. DG je suis désolé. Tu as waroon def rek nga def. DG moo bureau Normalement, foon top et puis à part tout ça j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer li ñu ma doon ci audit bi nañ ma je peux reprendre mes activités normalement et je te promets li dootul amati. bonne nouvelle beneen yoonatee soo de. tu m'appelles tu me préviens ça m'évitera de m'apprêter pour rien. tu as raison voilà tu as raison mais eh ben c'est pas de ma faute, j'ai même pas vu le temps passer. Et puis, dañu jékki-jékki rek suñu collaborateurs yi ñëw ndekete DG moo leen woo pour ñu mën a terminer audit bi ñu doon def. collaborateur Khalil yow ku ma yëpp nga neel mairie moo la tardeel. eh yow ban mairie. yow ma waaye yow nga naan ma ay ban mairie. Khalil parce que man j'avais pas du travail à faire aw moom dara lu may def dama nekkoon ci poireauté ci kër gi noonu gratuitement. Alpha mu ma pour dossier au crèche bi nga xam ne waroon nañ ko déposer ma repousser ko pour nous retrouver à nous. mais écoute man suñu retrouvailles man ak yow moo ma gën a lépp lu mën a gis. Khalil du dëgg Khalil li ngay wax dara amu ci laa la wax Khalil assume pour l'amour de Dieu je t'en supplie assume Fille, man yow rek ak yàlla ñoo fi tu sais quoi je vais fermer la porte La quinze duñu dégg. Personne ne va nous entendre. De veux, s'il te plaît, nga, assumer que tu sois un homme avec un grand H et que tu me dis, fait que la femme dans le train, si ce digante avec Mary. Écoute, Mary, amour, lui traîne sur une digante. Là, c'est que mon bon, il traîne avec Mary. Voilà, da nga fàtte li ñu waxoon yow. eh su fàtte di am yow ya fàtte Ya may dégg gis nga Ibrahim Khalil Cham, j'ai qu'une seule chose à te dire signé polygamie taxul laa doon polygame man la fat Bintou man maay wax ak yow loolu bu fekkee dafa nekk sa xel nga génne ko ci ta main sur ma route waa Omar Omar looy stressé nii delloo sil sa xel ah am suukar saa ngi ni am am bi may examen lii lañ ma doon defal ma cal ko yow mën nga génn ci man na la sa jox suukar da xam lu suukar bi di dox Khady Thiam doo dem xool résultat yi fu mu toll tamit. na mi ngi mel yow yaay def examen bu ñu yokk stress waaye ah. salaamaaleykum. waaye yéen fii law na de ngeen stressé nii ndax examen bi. dëgg la nag dañoo stressé ñun ñëpp waaye moom inquiété wu ma bag moom dangeen ngeen koy am moom. man moom stressé wu saw saf saw Khady mbaa jaam. ah Khady lan la. bag bag. ku la ko wax. ko. looy xaar. ay Khadi lu ñu wax. ah Khadi waxal ak ñun. waaye jàppale ma lu ñu wax. ah alors. alors passable. wóo passable. passable Khady jaam amoo. yooyu am naa. am

xoolal luy waay bàyyi Essa tamit dañ yàkkam bi yow man fu ma demee ba am xam nga ni dangay am wax dëgg xoolal waay booy moo si moo bëgg alhamdulilah jërëjëfite yàlla suñu borom alhamdulilah tout ça c'est grâce à toi shukran Ya tu loo ci xamul j'ai eu la mention maman. macha allah. Insa Insa bul di kontaan de yow kontaan pour la de mu yéen fii lu muy nga ñaaral ni. mention nga am loo ci teg allah. de toute façon maintenant c'est reproche mais tey du bësu jooy du bësu tëris. Insa eh. tey day xappi c'est la joie maman. tata am naa bëgg tata. yii félicitations yéen ñett ñëpp am ngeen dama kontaan tey moom dañuy arrosé kër gi ba mu tooy xeeb xeeb xeeb. yow moom moom mën ngaa yàq ndox di. Ubi robinet rek di arrosé ke yaay. c'est l'heure de dormir. ça dormir dormir et dormir dormir la ah hey ku def lu am lu bag bi rek ñu di leen solal ay sama lex yi may yàlla may na ma ko nag daa am air. tey jii tey jii feet bi du yomb. tey daal moom bésu feet la daal. ah ah macha allah. xat nag yaa nekk foofu ci lekk gi. xale de nee na lu mu bëggoon la amul nee na premier du centre de la bëggoon jël. luy loolu premier du centre ak dernier kañ ñooy am. waaw waaw am nga am nga kañ santal yàlla. lan moo tax boobu léegi sentiruma nga ñëw saa fi wax ma félicitation. yow damay bañ a la ba pare juum. juum lan. buñ la woowee ne la amoo loolu sama gàcce. non je suis déçu yaay. wa Bakir cham nak da nga war nopi nak yow yow lan la yow da melni ni iñaan ak lay duggu de. mi ndeke papa dina la jur ba pare melni ni daf lay iñaane. ah lima ma liggéey ci kër gi nga bëgg a yow Bakir ku soxor nga man dama mar am doom jo xamante day ramasser bag bi. mujj ñi xam nga ne buñu amul woon ma ci way liggéey na ko fi nag. mën mënuma fe jur doomu président fi kan mo la wax loolu ku la wax loolu. yaay nak ci exagérer de président man président. <laughs> ndaw réew mu xumbule eh. <laughs> yow eh sérieux tuuti sa àddina ah lan moo la daal papa Bakio man moom dama naan alhamdulilah hmm. parce que tey kenn ci ñun bu amoon day mel ni ñun ñëpp a ñàkk hmm. mais bi yàlla defee li gën ñun ñëpp am pour ma part je remercie le grand Tidiane moom mi nga xam ne jàppale na ma ci révision bu baax a baax hmm. et le professeur en tout cas félicitations encore à toi d'autant plus que mention nga am tay jii nii di nga am embarras choix par rapport ak école bi nga bëgg jàngee et tout. c'est vrai tata et merci beaucoup maintenant pour l'instant moom xamaguma lan laa war a def dinaa ci xalaat bu baax a baax. instant bii nii enjoy ton moment da ngeen di feetu tey donc t'inquiète tu as tout ton temps pour ça. mais pas vraiment le seul qui a le temps qu'il faut c'est le temps en soi en plus je ne vois pas l'utilité de fêter la réussite au baccalauréat des enfants xale bu ci ban jàng bu échoué koo def di sa bopp. man de Ibnu Jaam mi jàqal na ma kii moom mbaa du extraterrestre ñu koy waxee extraterrestre. waaye yow koo xamante ni kenn xamul loo bëgg man de Ibnu Jaam xam nga lu ma def man na buggee damay ràcc toog di xaar yow di xool yow lan nga bëgg ci àddina. positive.

te nga teg sa si yaay yi yaay dafa bëgg sa avenir Hein mais écoutez écoutez on ne devient pas professeur en un coup de tête quand même fa Bakir mais xalaat leen yow bi gars di keleng leng leng leng leng. yow keleng leng la yor di ci la yor di. man Michael Jackson. alhamdulilah Omar kaay kaay ma gis. mu ne. ma gis la nga naan mu ne. yoo bàyyi sa de instant yi fête bi toll nii mi rek moo tax a ñun dañuy fête. dañuy fête papa da nga xam ne lay doy. papa man damay fête damay profiter sama bonheur. ah mais ku la na la wax mbaa jox la. ok garaaw baax toogal waaw gisee rek gisee rek. metti rek. da ngeen a kase de yow Omar dama indi tableau bi ngeen wékk yëf yi nag yëf yi biir commencé. Khady da ngay tàmbali la deuxième partie de ta vie et tu vas comprendre am na lu ëpp solo walla wala dem euh, jàngi au Canada. Tijane laajuma la loolu sa yoon nekk si nga ñibbi. ah lu toll ni tey doom di arrosage. xanaa nga war leen a mën a jëndal nga toog. kenn du wax arrosage arrosage dégg nga ma jàngal la. banaa laa sa weenu kaña yooyu. merci. damay ma torop nga soppi arrosage bi tànn beeru sañ ma ko. ah dañoo war a jàkkaarloo nag def yee siidi. yow xanaa nga dof lan ngay def fii. mais dama la woo téléphone ba sonn nangu woo ma jël ma ne naa forcer barrage. lay pen lolou raison de xam nga ne instant suñu kër ñepp a ngi ci biir wala da nga bëgg sama papa dak la bijouterie ba. dama dama ragal lolou genn bu xif du dégg jat te dafa am ben affaire bu am tabaski bi joxna la jëlo muy yéré di dal di doomu garmi di am yépp nak am nga ko tey muy bak chaîne bi moom xamna do mako bañal man ma la ko jox cadeau quoi bul xalat le passé c'est le passé chaîne bi andul ak daray santage xol bu sedd laa la ko joxee. merci beaucoup dinaa ko jël de waaye demal balaa ñu la fiy fekk. dinaa dem benn affaire am na jigéen boo xam ne loo ko jox mu bañ te du la laaj dara elle mérite tout loolu moo tax ma lay wër ba fajar may mu mburaake xadi yow rek laay toog. maaleykum salaam xadi Thiam yow ana Sadikh Thiam. mu ni nga may laajee Sadikh. yow ana Sadikh Thiam nga ni nga makoy koy laaje cuub la ilaha la la xam nga li riis na Omar Thiam waaw waaw sama taw ca kaw Khady Thiam waaw waaw Insa Thiam xanaa lii rëy na waaye tàccu leen loolu waaye <laughs> tey nag je vais faire un discours bref très bref même xam nga fête bi neex na mais bu fête bi neex bu ñu fàtte mention spéciale à notre bàjjen tomate moom moo waral li lepp mo ñu organiser arrosage bi ah, yow lenn lañ lay ñaanal yàlla na nga dundu ba tonton su tak la na kontaan nga eh, waay sàmm wax ngeen deug de yéen tal fetu ni dal bay disku <laughs> yena tay nak ha ah, Rama ba jam lu xew o maa ngi yow affaire sadikh mi la ma affaire ah, waaw ma sa lamay bul ni ma soxna ci nit ku bon ki nga doon li ngay eh. ñàkk fulla ñàkk fayda ñak loy rus pédophile bu mag bi nga doon eh, eh, ah, subhanallah yow do sax nit dimbali ma yow mu yi dal len way yow nak gawe ñu nak gawe ñu lan la sa dif def lan la def dama bëgg nga dal yow xana bo mu rusul man mi ndayam mu rus imam bi jité sa bay tay li ngay bon dem biire sama romu do laa ilaaha illallah ay yow mii. subhanallah. alhamdulilah. eh, eh. eh. eh ma yow mu dama bàyyi yow. jam ay yow man ma woon di. ma sa dir. dëgg la soxna si ñoo ngi jégalu waat bu baax ñu wax. Euh, ree maa ngi ñëw. Ah. tooñ nan la te bu ma la tooñee jàpp naa ni famille Thiamine yépp la tooñ. Ah. déedéet déedéet ñu ci génne kat ñu ci kat nag. nabu lan la kàccat ñu ci de. ma wax. jëlal yëpp. waaye da ngaa juum si def-def bi ndax du man waaye sama dom la day melni man la. instant eh, mi man lan la xam bay biir oh, naa. Eh. da ngay na def lu yomb yéen day baal. mooy oh, yow waaye du instant noppi leen waaye du instant waaye xam nga ni ti jaar la. doomu marem Thiam rek. Eh, kooku raw ëppal dina ko def. du gëti nga si man mom rek yow du gëti duggati nga si man. keneen biiróo yow nabu ye kenn ngeen nopi do nopi jëlal melni yo ci biir nit ni compal tànk si nii soxna si ki ko def ñun incha allah dinañ jël suñuy responsabilité ndax suñu doom la mi Omar mii ah. kan mar oh, mais man la moo tax kër gi lu xew Omar la moo tax kër gi lu xew eh, Omar defal ni puusal nga taxaw fi eh, téye sa làmmiñ borom gudd du lakk gis nga sa baay du dem defi bu ne feebam nga ñëw di ko jiñ sama doom duma la ko nangul nag moom de moo ma biiral ah? nga ne Omar mii moo ma biiral yaa mën fen yaa a ko def ko ko eh ma ne dimbali ma. yow nga xam ne xam nga njaañ xam njoor xam bu xees xam bu bi jur fenkat bi mu doon ko moo ko gis nga wax wax du Omar. eh, eh sigil nga xool ma Omar Thiam ngay dof dof li damaa nga wax waa kër gi ni ma na eh sigil eh sigil bala nga may mbëkk yow siggil bala nga may mbëkk nga wax ak nit ñi da nga dul wax. ngay dof dof Omar si nga wax ak nit ñi sa bàjjen a ngi waxal sama yaay mooy ne fii sëg du naa ma ndax daggal nañ na war a daggal ah, ma dem di ko essayé delloo njukkal mu rëcc mooy ñàkk fay dama lay essayé te yow boo ko màttoon boo léegi du essayé eh, dafa ndànk ah war caa taxawal yow dafa ndànk yemal bala ngaa gaañ sa bopp Omar Thiam yaa de yow wuy ma eh moytu balaa nga gañ sama bàyyi doom bi lii lan la nii. waa jéggal lii eh, waa jéggal lii Omar yaa ma Omar ci giir gi Omar yaa ma dugal ci ñii. yow dimbali ma sa xef yi sutonte sa kanam gi di nduroog kakatu mbaam yow yaa woo bët yow yow yaa war a yuuxu wala man maa ngi war a yuuxu man man mi ni ëmbal sama doom ji. Eh, mais yow Omar nan la def ba ëmbal kii. ah bu ko defee eh, lii ba mu leer nañ na gaaw. waaw. Oma Thiam dafa amoon feebaru biir. waaw bi mu demee hôpital. médecin bi nekk ko ko ndoxam bi dafa bëri. eh ndox waaw. et que su sëyul deux fois ci semaine bi mun na ko indi ay problème man tam ma yërëm ko te dama koo bëgg te bëgguma dara lu ko metti ma ne naa ko jàppale rek. Ah. fii nga dugg nii ma xool de oma sabag bi ñu doon wax da nga koo yow sàccoo ko de da nga science naka te da réfléchir gam ndox ma la wax si bopp yow waaye Omar Thiam fan la dafa Omar daa am dafa ndànk na bu Omar amul yàpp amul dere bay am ndox waay maa ngi xaar ba nga wax benn baat rek laay xaar moom ngeen koñ bi de ah jëw jëw bàjjen man de damay ragal sang bi gané ci suba rek découragé. ko ñibbi ci suba. xana sa bay ramana nga def. may bi ah bii fay Patrice ah li mom bu ko imam yegge bu ko mu ko nak sen dom ji biiral sama dom ji. lay imaam yëg du ko neex waaye du nuyoo c'est-à-dire lan la lu xew baa jàmm la xanaa du yéen laay waxal lu xew si kër gi baa jàmm Omar de mu biiroo doomu imaam lan Omar اله الا الله اسمع ما يسمع عمر خالي بن داو بيجي دوغل عمر شاب ngeen baal ñu mën ngeen ñoo may ñoom lu ñu réglé rek te yàlla rek tax du ngeen ñu fan yu may su ngeen ñun mm. de ñàkk jom ak pànk jàjjëri la yéen seen kër gi bu kii di man daal vraiment neel suñu kër gi ne ñun ñëpp ko bokk waaye lii man maay ki koy lijjanti bi passe bi papito rëccoon na la bi yoon du la rëcc ñëw eh! bàyyi dem wala du ma kenn téye du ma kenn boot dam to laa